Gambian Talents Promotion. The Gambia's first non-profit online public broadcasting network and home of culture and entertainment. At GTP, we bring you the best of Gambian creativity right to your doorsteps. Sell your products and services to millions of Gambians and friends of the Gambia via our online radio, TV, and newspaper. Advertise your business and watch your clientele grow like never before. Our content from the Gambia gets the diaspora hooked up to our screen, whilst those in Gambia love what we bring for them from afar. This gives us a unique edge and separates us from the rest. If you want to be heard or seen by the world, contact GCP, WeTap, Nurture, and promote Gambian talents and businesses. Think promotion, think GTP. For all your event coverages, religious gathering, naming ceremonies, weddings, documentaries, music videos, TV and radio commercial, and more. We also do design and print jobs of all types, logos, business cards, brushes, flyers, t-shirts, coffee mugs, banners, billboards, catalogs, and magazines. We also do lamination and projector rentals. Our team of professional and dynamic young people are ever ready to serve your business needs. We are the first Gambian non-profit online public broadcasting network with over 300,000 active followers across all social media. At GTP, we build people. If you want to learn how to become a journalist, videographer, or media personnel for free of charge, contact GTP on 750 3654

Orange Money Transfer ñoo dellu si waat indi leen xéewal bu neex a neex fii ba weeri octobre di jeex waaw fii ba weeri octobre di jeex mën nga am sansuwin benn saaku maalo saa yoo xaalis fii ci biir réewi Gambia bàyyee ko foofu sa UK Europe US Canada ak Switzerland ak Supersonix money transfer <laughs> xanaa lii neexati na doore ko tey ba weeri octobre di jeex mën nga win benn saaku maalo saa yoo xaalis fii si biir réewi Gambia bàyyee ko UK Europe US Canada ak Switzerland téeméeri saaku maalo ñoo fi nekk kon gaawal nga bokka ci téeméeri nit yi nga xam ne mën nga am sans win ci xéewal yi nga xam ne kenn dootu ko natable ak Supersonix money transfer transfa bànneexu leen ci suñ yónneekaay xaalis bi gën a wóor gën gaaw gën noppale ak yónneekaay xaalis bi gën a ci biir réewi Gambia te duñ la fayeeku dara saytu leen ñu ci Google Play Store wala Apple Store nga mën a bindoo ci suñ app bi di Supersonix Money Transfer app shuu cay bii xéewal ak Supersonix rek. Sentivivinech na nyo. Whoa. Shen shoyinech na nyo. Yeah. fet na. wo Gamyan Talents TV. Nyurep. Nañ seetaan Gamian Talents. Eh. Gambian Talents dara du côté Talents. Wow. musique moom yàlla ma yàlla ma ko sédd rek soo gisee suma loxo yi def naa fitting I motor mechanics five years lu santaas rek laa fa jële jëlewu ma fa dara just loose and tight I nga waaye musique mom, the dama ne bread rek master of arts because me, la am naa master of arts Allah. yàlla Allah, You know. because the guy, the guy, the guy, man, a def te am master of arts I've did it for several times you know And I'm gonna entertain some millions of people within one one hour together I'm nga li ma miin def naa ko besoona su wax dëgg yàlla su nañ ci musique trop lu nag certificat bu ñu jox ki rib ko la waaye yàlla ci boppam daf day joxe yooyu meen mm-hmm. su waaw doon la demee fi mu nekk alhamdulilah alhamdulilah musique moom Gambia yéeme rek mm. waaye nag alhamdulilah <laughs> um, Ah, balaa may ñëw fii def naa ay gestu laajte naa nit yu baree bari kenn mooy Musa Afia wax neen ma lu baree bari si yow waaye tamit diga noon ne time boo bëggoon a def musique sa famille nanguwuñ toon loolu lu am la ndax ma def musique ñoom bëgguñ ko woon meen diga naa sax am naa maam bu daan xalam xaw ma ko nag moo mm-hmm. ko diga because time ma ko waree laaj su may parents fekk na ñu mm-hmm. ñu laxu ñu gañu ta ñom rek ñoma doy ci dat question mm-hmm. moo tax tiigal am na mam bran khalam, bu daan xalam wa di wa waaye ñoom Atol atol. ma def music atol atol dama daan laxu di ko def bis ma papa gañu nak on di sori 1972 ci la am fit di eh ay su ma man kasak sax samba soho suñu ma ñëwee ma mere non xaw ma mel daal bi ko sof lu tax ma dem kasak <laughs> xam nga rek dangay waaru daal ñoom soo ko soo ko doon rek yàqu nga moo tax ma woyal la woy ma la wax léegi waaw bala jigi mu sax kasakal ñu yaa ñu war a fay mbaar njaay am say lenge ma tontu bisimilaay bisimilaay kasak laa doore doon raam di jéem tey mu doon enu bés bi njëkka ba ma woy feeñoo ci bésu këram la ma yaarama xool jooy defe ne yàqu naa fekk yàquma ma ne surtout loolu njañ bu gëntoon ne bala jigi doom la konoon mu kontaan woyaa yooyu njureel cause musique bi moom alhamdulilah ba nga koo def waaye dugaluma ci benn banditisme daal mhm. maa ngi koy def dama am famille gis nga non benn paa dama la koy wax rek benn paa mus na ma koo wax لسانك تدفع أيون فابلهم فابلسون سماي ويدا مدان قما أغيوي واف دوبا ميبن من دبن من دمالي هيبي أما دمالي هيبي دال مانشي دروغر دروغر لا أما ما دب تجي دكان بما واحد كبيسة تفاير نعم ما دب تجي دكان من ما ما جلي بقى ديفيرزا مني ويرفتيت ودرتي بنتي بعلى ما أخ بإكسيت ne ko baal ma axa ci lan ne man dama foogoon ne wax dëgg yàlla yow doo xippi doo xool sax yaa ngi drogue rek ma ne ko non musique bi suma profession la waaye man dama am famille comme yow waaw dama lii suma suma suma liggéey la nag suma laajee ma fecce ba jiitu sax naa ko def waaye nag ama responsablement waa ji rus be meen non du ma wax dëkk bi kon na fay xam ne moom la mm-hmm. bu dee mu ngi dunda yi noonu mm-hmm. Wali jar jaar kena fa ci ni me <laughs> all right um, Uncle Musa beli kita tamit um ne ko am um, yokute amna li nga xamne tamit yaa ngi ko si bir music bi yokute bi yeb amna yu bari bari yo don janku wantel manam sa challenges am um, doo ñu si muna may tuti waaw challenge Africa fi Africa la Siko ba leo he so so buri uza ga buri dalu sako i'm going to mean because some people when you say the black art is very wrong it is my latest release bi sax soldat I'm not way uh, cassette bu my def soldat maa ngi koy wax ci song africa pour ñu bàyyi liggéeyante bi xam nga lu ñuy tërreel la fighting is too much te nit ku ñuul li muy xeexee xam nga loolu lay wax ci gaal gi dem na am na suma na morso gaaw gi dem na géej gaal gi dem na géej soo ko déggee maa ngi naan dëgga dëgga lii mooy xam-xam noon du gis bii xam-xam bu du doon ak taal plane du ma naawal nda kon dinaa liggéey lu gën a màgg avion lekk tamay naawal te duma fay ab dërëm waaw because maam yi niñ ko daan defee dañ ne suñ la bëggee korte korte gunuur la ñoo yónni bi Amérique gunuur hmm. def ko ci téere mu dem ba Amérique def jëy léegi suñ set yi ñu ngi bugg a tukki visa da leen téye ba ñuy dem baaku yi xam nga loolu is laziness mm-hmm. moo ñu ko indil su fekkoon ne xam-xam bi ñu amoon nañ ko doon dimbalante kon du yëpp du am daal waaye Africa ñu dañ soxor yaa wicket bare am nañ xam-xam is very sad salaamaaleykum Gambia sant yàlla di leen ñaanal di ñaanal ki nga xam ne nag mooy aji jiitu ji nga xam ne euh, Gambian Talent saa su ne dañuy jóg di wane li nga xam ne nag mooy Musa Afia Ngum liggéeyam bi nga xam ne liggéeyal na ko Gambia waaye liggéeyal na ko senegal waaye liggéeyal na ko àddina si yëpp tey suñ toogee ba dégg musique Gambia si yeneen yeneeni place ku mel ni Musa Afia Ngum euh, jar nañoo delloo ko njukkal bési tey bi di october 11 bés bii la génnoon àddina 2015 Musa Afia Ngum nekk artiste boo xam ne artiste bu xarañ nekk artiste boo xam ne nu ma koy waxee rek euh, soo déggee Gambia soo déggee Banjul soo déggee li nga xam ne nag mooy Gambia ak ay ñoñam Moussa Affe Ngom moo tax tey ñu dégg ko kon nag Moussa Affe Ngom la ñuy jooy Moussa Affe Ngom ngay jooy waaye manit moom lay jooy kon nag àddina si moom la ñuy jooy suñu Moussa dem na dem na dem na dem na waaye dinañ génn waxtaan ak ay njojam laajte leen kan mooy woon Moussa Affe Ngom mu nekkoon jàmbaar sejambari. Balla Jëme Seen ak Bakara nit ku gambela. koo xam ne seetu la ngi door di 1975 76 mako dan daan xam-xami nit ku ñuul fu nekk laa jaaram moom am nag lu jiitu loolu njome njañ lool li njañ njome jur tafsir demba mu jur màkki suma baay lool li jur sëriñ mbay laar mu jur ramatulaay ñang yaayi Musaa Ngom su ñaari ma bokk daya baay mu nekkoon nit suma ma séddoon ak suma xarit ma yàgg koo xam ci musique ba dara du dara ñu bokk bokk ngéwél gi bokk aar bi circulation lamp faal c'est la taalibe c'est la taalibe Moussa Afia Ngom mook suma yaaya bokkal ndey ak baay moom mooy suma caati ñoom yaay bu góor man suma nijaay la pare moo ma yar moo ma dugal ci musique bi waaw ñi moo nekk Sénégal yëpp maa moo ma fa nekk kon xam nga kooku xam na musaa Moussa suma rakk la bokk naa ci li start playing music most of songs in mu daan Marco binda I taught him to sing songs most of them that's a fact he was a very talented artist well-known, very open honest good at what he was doing yàlla nag moom moom jaam he decrees du dégg njoowaan banu koy joow muy dina xom mbaay boo demee nga ni Musa ñu ngi koy jooy ta noppee guñu eh, Musa Ngum nit ku baax la woon taalibi la woon nit ku baax la woon taalibe la woon macha allah te ku mën a woon a way waaw te nit ku baax la kon bu fekkee ni gédd na génn na àddina ñëpp dinañ si am naqar waaw keroog ñun ñëpp dañ am naqar way jooy la ñu Moussa Afia Ngom moom dem na Moussa Ngom moo sama papa ko ndeya baay Safia Ngom naa naan bu mag ci biir Gambie fii àddina bi xam ko man ko ñaan yal na ko yàlla xaaree àjjana fii daw la woon ñu ni ñuy wéyee ñu Fada daal li mën a wax si moom daal suñ ko doon waxtee beele du jeex Fada baax na oyof na yiw na tabe na Fada daal léppang ci moom daal Ada dal jiko wali wala yor mo moo suma yaay eh, maam Jome Ngom ñoo bokk ndey ak baay meññee si Antumaan Ngom ak Ramatulaay Ñang sama yaay dem na ndar sama rakku yaay dem na ndar sama baay dem na tool sama rakku dem na tool xale yi jàngi nañ naan ba rotina musa Afia Ngom moom du ne artiste dama ne xam nga ko ku nekk Gambien tamit xam nga ko euh, ci yëngutoom si euh, music, mu nekk tam because euh, nekk na si si film nekk na comme liggéeyam si film bi bi nga xam ne definitely ñëpp a ko ràññee respect ko si bugg ko si man moom dinaa wax ne ñun lokki naa lokki boo xam ne bokk naa ak moom stage invite naa ko suma programme suma anniversary naka alliance franco mu bàyyi soxlaam yëpp mu ñëw guddi bi bokk ak ñun sound bi ba tey nit yi dañ ko dee play definitely euh, te tamit dama ne képp koo xam ne artiste nga te nga bëgg a amee carrière in music fii si Sénégal bi foog nga jàng ci moom si moom ne euh, music ñeme la because jógee na fi cross border dem toog Sénégal proof fa boppam bàyyi fa respect bàyyi fa liggéey bàyyi fa gars yi gëm ko am ne Gambia la jógee bot euh, at least bàyyi na fa Ah, lo xamne dal ken kenn duko fa faté té lolu jangane ko man ma pas personnalité jàng ko ci mom ne niki dal lepp lo xamne yang ne ko def tan ko ro banjul banjul ye nelen banjul banjul ye well the late musangom i think i uh, grow up um, knowing musangom because of his good music and his love for senegambia sa songs has always something to do with the society and it was very important for us to to, to link ourselves with those lyrics because um, he was always striving to make the society a brighter place through his good lyrics, um, through teaching, preaching the people um, good manners and um, way forward to, to the life we are living. So it has really done certain things, many things in me. Uh, yàlla ba musa nak euh, Balla jeme sen lima wara muna wax ci mom bari na ndax fay sun papa di sun xarit ndax euh, mom muna wax lim def ci ar yeb mom ak sun wajur bu gora ko def euh, alaaji baro mbay man nge fatale ko bi ñoo nekkal lu ndaw man ak fa mère ak pa sun dan practice yi ko na dañu dan yobu bobu mère nge awu Pa musa suma banko tegal maa fatale ko ñun ci perong bi lañu tok ñom ñu nekk ci salle bi di practice euh, muy lo xamne lu yag la ba pare mu def ak suma pa lu bari den dan tok ay weeks ñun ñun xalé yi rek ñoy nekk ci kër gi suma pa ak mère ak Pa Moussa di to nekk ay to nekk ci Greta Banjul be yoyu kon euh, fogna naa ne mom ñun so gisé ñu xam mbiri artiste xam mbiri ay artiste buy dem ay to bay sa njabot gannaaw ak lepp Eh, Fogna suma ba anda bim don anda ak Pa Moussa ak mer lol tax nañu am ci experience bu bare bare bare bare um tay suma don wax ci musa Faye Ngom suñu papa nonu um dina nek something li nga xamne it's it's pa bu tabela won ku bëgg njabootam ku yërëm njabootam ku bëggoon ku bëggoon doomi aadama la te ku ñeme wona joxe ñam la. te um, bugga na la ba nga foog ne sax daf la ragal en tant que doom mu newoon ku nekka ku neex a bàyyoo doon waxtaan ak doomam yi comme ay moromam nga euh, doylu ak in a ne comme euh, nu àdduna demee soo doyloo rek euh, yu bari di si ci noppal sa boobu waaye doylu boobu noonu balaa nga ko mën am foog nga am taalibe taalibe tamit lu am solo la ci doomi aadama te nekk na loo xam ne comme sangom ku ko xam-xam ne borom mooy borom akasa te suñ ne borom akasa muy ko am taalibe amoon na taalibe bi nga xam ne ñun ñëpp daanaka jàngee nañ loolu si moom bi nga xam ne waaw moo tax yaa ngi mën a content tu loo mën a am rek si àdduna sax naa jël suma jabar ñaari yoon lay wëy di wëy di wëy wa musa afi Ngom ñun den juddu xam ko ko que mayon nako daraja mayon nako bayre munon na wey sun yaay ak sun nijaay noo daan bëggee be ñun ñu juddu fekk si mbégte boobu yàlla tamit nu mag yàlla boole noo moom you know so mun naa laa wax ne is more than thirty something years moo xamee Moussa Ngom ak léegi gaañi boloo leen gaañi liggéey leen Gani bolo len, kon Gani gaañi liggéey leen amoon na jamono joo xam ne maam ni coono woon nañ li sunu maam ni def nañu ko kon nen leen ànd booloo te jàpp ci te sito gaañi boore leen boore leen gaañi liggéey leen Gambians, you They know him for who he was. I mean artiste bu baax lo woon loolu lañ war a def rek muy Moussa muy beneen artiste undi dëkk bi Hamne, orma luñ aat comme yeneen dëkk yi loolu ka saad muy Moussa ñoom Pape Touré ñoom Ali Hab ñoom Malandou na Gambian artiste yu powerful ñu gaañu asif de they never were here waaye nag loolu ni demee la foog ñu understand ne art ah, is a very important aspect to our civilization. akasa loolu jox nga moo rek ma fàttaleku kàddoom yi liñ ko gënoon a ràññee muy akasa Moussa Afia Ngum artiste la woon xakkan ci biir réew mi dafa juddoo ngéwél yaroo ci ngéwél magee ci ngéwél ba yàlla defit mu deyee ci ngéwél dafa nekkoon an icon ba pare sax mu bàyyi gannaawam ay ngéwél sax fàtte naa ci aat loolu kon dafa doon koo xam ne dafa transpire li nga xam ne rek ne moom la nit war a ci moom nga doon géwél nga mag ba dee ci ngéwél ngay bàyyi ay njaboot ñu doon ay ngéwél tamit kon ba léegi sa xayre ci bi muy move di dem on kon loolu màndarga bu saxaw la musaa dafa toppoon magam ci group bi ñoom magam yi mooy ñoom Abdoulaye Kabir Ngom ci seen biir la màggee ba jànga bañ ko ekkati jox ko Mike Mike jooju mu yor nag mu liggéey ak ñoom def so many pieces ci loxo Gelewaar ba yàlla ñu def mu move on to a solo dem join Sénégal sax ba mu gisee ne foofu la carrière am gën a tabe gën a taxaw fa lañ ko gënoon a jël mu taxaw te ba pare mu ñëw nekk de ku duutoon ku controversial sax dafa ñëwoon ku am his own niche muy taxawaayam bu uteeg li nit ñi am muy ne moom Sénégal bi bii mu gis ak fracturing bi mu am gis noonu muy taxaw after confédération bi mu jël ko gàkkoo ko nag mu doon one of the artists who celebrated and promoted this integration bi diggante Gambia ak Sénégal mu amoon na benn fashion ak even design bi mu génne woon boo xam ne ku ko gis rek ñu ne la ne euh, Sénégambia muy su mooy dàlla bi moo jël fële léegi-léegi sax ak xopoto yére yi moo boole textile yi Gambia ak fële so loolu yëpp moo doon di impact di wone di impression about Sénégambia Moussa musique am dafa law ba ci biti parce que wolof dam ah, wolof dañ ne woy bu diglewul xamlewul bu terewul yeetewul doona tuyul woy ab naxaate la Moussa nag woyam danga koy jàngee daf lay jubal daf lay teg ci yooni siraatal mustaqim daf lay am loo yërmande message la is full of message Moussa woyam dafa law ci wool bi waaw foo dem fekk ko fa Moussa Ngom dama ko daan fekki PWD transport muy liggéey mécanicien fi tala woon ma wàccaan school dem seeti ko fa mu jegi mu ne ma baro lii duma ci continuer suma loxo yi du dóor nit te du pour téye ak ay kele di wiis man woykat laa suma loxo bi microphone la xam loolu ci seventies yi la Ali yàgg na mu nekk nit ku baax koo xam ne nit ku doylu ba pare aar bi daf ci nekkoon te aleel tegu ko ci woon ba pare boroom xam-xam bu rëy wallaahi Gambia waruñoo jéggaane ci wàlli woy ak aar fen ndax ñu ngi ko am Gambia gi Moussa Ngom li mu wax ci musique li mu def ci aar ci Afrique fii ah su ma newul mooy ndomba wanit mu ca kaw a kaw lim woy su ko buggee lim fii la ñoo fanaan dafa bari ndax ñoo wuj fa pour jataaye woy waaye ndikoon ma wax leen ci lu bari mu ne poti ndaal yi yàlla yi ëppante waaye couleur yaa wuute bu sa bët weexee rek sa couleur réer la loolu nag dafa junj lu baree baree baree bëri di ko ñaanal yàlla barke Seydina Muhammad fam nekk kennal ko fi mu jógee. waaw jàng naa lu bari si moom jàng naa si moom ngum doylu gum boppam loolu moom jàng naa ko si moom Moussa nekkoon daanaan boo xam ne fi mu nekk lañ ko doog xam. Nah, la ndaanaan bu mag di xam li moo def te roy ci kenn dafa amoon mbiri boppam mu taxoon Sénégambie bëggoo ko àddina bi bëggoo ko ndax looy def gum si sa bopp rek nit ñi dañu see fekk si Moussa noonu la meloon. tournée yu bari ñu koy aw ma koy aw sama jëkkër di ko tëggal waaw ah, macha allah waaw yàgg nañu ànd ak moom dem ay tournée dem fu nekk waaw ñu koy aw nit ku nit ko xamni amut sax wax so ko fekke mu tok sa comportement am doo ni way kat la ndax nopem waaw Moussa Ngom euh luma jang ci mom barina barina bi ko because of suma papa daf ma ma daan yónni time bu ma nekkee xaleel dan daan jëli ji saaf di len yobul because of bu ñëk ba euh, magi dañ lo won gerté saaf torop togon ngon ni ay day time ni, di lek gerté saaf ak mburu Euh, ba laaki nongo bi sax ñoom alaaji Mansour di la wax càkkum lañ ko dee ooyee si xam naa yow doo xam loolu <laughs> Moussa jànga si moom mooy euh, affaire lël gis nga ne misigam bu bari daf daan taagu mbaar because of euh, diine islam dafa wax ne doomi julit soo juddoo before ngay def anything danga nga war a dem góor néegi góor soo duggee néegi góor ba pare si lañ laa door a dugal alxuraan soo duggee alxuraan ba pare jànge daara ba pare si nga dora mo pour dem taka nek dal lo buga dom way fo nga duga negi gor te negi gor gugu nonu musa afiya ngo moñu ko don weyal ñun xalé yi ñu ko oba xam mo nan taguna ma man tagatuma mba jaay suma yaay dem na ndar suma yaaki mbaay dem na ndar woyum daan so musa amna lu bari ñun luñ janga de pere musa su fekke dañu wo xam tay fi duñ fi joge because of musa dafa do lot si all over the globe all over the globe musa dafa do lot lima jangati mom bari na wax naa la na Moussa soo toogee moom benn two euh, minutes di nga jàngat ci moom yërmande am na bés ñu ngi toog fii ci gannaaw ñu ngi ko wat nel bu ees xam nga nel ñu ngi ko wat ñu toog ci gannaaw fii suñ benn mbokka bu dëkk ci kër gi doomam bi nii la em xale la mu ñëw xool musaa ba sàppali ko bu dee dóor loxoom bi ci nelam ñun ñëpp ñu mer mu ne bàyyi leen ko bu ko kenn laal mun naa am su fekkoon ne dóoruma ci boppa de teppiwuma ni kon leneen mooy am ci suma boppam xam nga kooku xam nga fi mu nekk génération bii nii su xale ñëwee fekk la nga toog mu mbéj la loo ko def waaw hmm? moom nag daf ne bu ko kenn laal waaw parce que yàlla moo ko yónni pour mu fanqal li waroon a ñëw waaw Moussa li nga mën a jàng ci moom bari na dafa bari torop Moussa dafa am benn bi sax nit ñëw muy dépassam nga dugga si ne amulo sa njaboot gaa nga tok mu génnee jox la ko nga wax ko mu ne la gala say dawal seigne fallu nga man Moussa li ma jang ci mom dafa bari ma toogee moom rek Moussa li fil armée la mo taxone ngay gis muy woy kasak parce que kasak mbar dang fa jangé comme camp la dañ lay jangal ak so fa génnee war nga am yar am teggin am respect

man nah because man dangay waaru ama benn problem. Moto tax ma dem Senegal di ko easily xam nga Sénégal si dee like me much than Gambia I'm a proud tak to be a Gambian waaw li ma mën a fàttale ko si bari na waaye mun naa seex benn lim don dox diggante Senegal ak Gambia pour Sénégal Senegal ak Gambia Sénégambia daal dox tànki jéego pour Sénégal ak Gambia nekk benn ne moom bokun bokkuñ benn benen nit jité ko mom du musa wecci daalaam yeeg kawasam yi waaw faada moom li ma mën ko ci mom yoy daf ma gëna marqué yoy mom bokk na ci because kiy dox rew ak rew pour ñu nekk benn té ñepp xam nañ affaire yi rew ak rew suñ bodé légui légui yu sew daf fare duga waaw ah, so mom, ira even benn time bi Sénégal ak Gambie di play ba nekkon problème bo fi ñu dem ba foofu nonu mané ñom Nele jalo fi eh, immigration ne nañ dem saiti fada <clears throat> ñu dem seeti ko biñ demee seeti ko bala maaj bi di dor li mo moy mooy mu ne ma man man dal liñ bolé Sénégal ak Gambie Gambien yi pour ñu mu ne ma mu ne because ñaari réew yi waruñ leen a si mu ne di nangu yi te gis nga lim ñew prédic fofu la problème la nga xam benn anniversaire bu mu laas def euh, euh, jaama xool ma dem fa time boobu Sandeng mu ngi woy ñu Sandeng the next day mu call ma dafa waxa wax he said a lot of things you know encourage di ñu encourage euh, di ñu digal di ñu advice on what to do on how to handle suñ carrière sama rakki dem na sama baay dem na tool sama rakki baay dem na tool yaay wala ya jàngi nañ te mbindaan warooti na doy na weto sama saali ni njaay ba yaatu na waaye su ma fa duggee day mel ni moom lay jëndeer waaw Moussa Réel oh, moom sun euh, dictionary la. You know, Musangom, we have lots to learn about him We for ba war xale war nañ di a mën a jàng si moom si bi noo def you know Musangom Ngum lu ma jàng si uh, humanity humanity you know uh, oyof xam nga su ma nee ñite nag tënk na yëpp te Musa ku ñite la cofeel la gis na tamit euh, njabootam nekk njaboot goo xam ne suma ma sañoon euh, damaa ñaan man tamit suma doom yi maaga ba mel ni njabootam. doylu ak macha allah gom yàlla Moussa moom dañ naan ànd dañoo pile ba pare xaalis bañ am fiñ ko konte bugg koo xam am na suñ benn waaye juñ Moussa jox xaalis bu bari pour mu wër Sénégal diggante Sokone dem Kaolack ba Bambey Kaffrine pour mu dem organiser dëkk bu nekk fañ war a pile fay xool yi ak yëpp waa ji dem lu mut one week del si waat ne Moussa Ngom yëpp nooy na wër naa fépp pare naa talukaay yeeg hôtel yaa yëpp delluwaat ndeke waa ji dafa lekk xaalis ba dem dëkk bu ñu àgg rek suñ ne jameet ca borom dëkk ba dañoo tiit sax suñ leen ne programme bi fan la ak fi ñu war a wàccaalaat mu ne ñu ne ñu bañ programme ke rek moto bi jël dañ wër Sénégal yëpp del si yàlla def ñuy dem Ndofane ñëw ba gaara si ñooro Kaolack waaja ñu defoon loolu toog rek am ci biir van de ku ku yuuxu ne woy diw sàngama nga ne ñu jàpp ko jiital ko ne police ke rek bu saagom daf doon jooy di ñaan bay téye suñ taggay ne nañ ko bàyyi nga xam ne kooku nit ku baax la su ma xool fees bi laay mënatuma wax ci moom ku am diina la njëkk ku am yërmande la ku bugg njabootam la ku bugg a faamileem la musaa duy bugg a jooyloo kenn soo meree sax daf laa neexal kon xam nga loolu jafe na ci jamono ji ñu nekk nii Moussa am na yërmande Moussa dal na Moussa tey na Moussa jullite na musaa bugg na njabootam musaa bugg na familleem Moussa bugg na Sénégambia bugg na Touba boobu mooy foos xolam waaw. su ko defee man maa wax ñi nga xam ne dañ gaañu woon moom du wax waxi di jàmbur soo toogee moom ni wéet ñàkk a wéet Moussa doo waxi jàmbur Moussa du mere musuma koo gis bu ku ko nuru si famille bi rek doo am problème suñ toogaan mu ne ma faye léegi noonu rek la ma daan ooyee ba doom ji ñoo man seex seex te liggéey kiw TV noonu rek la ma dee su ma noonu su ma yaram bi rek dee ba dee ma ko dee delloo gannaaw yal na sut bàyyam fay sa barke bi man seex ak man Yusufa yëpp maa ngi di ñaanal kontaan naa si ñoom torop su ma toogaa mu ne ma xam nga doole mun nga kuy doole faada mu ne ma doole doomi maa Yunus la woon mu ne ko man xaw mune kuy mu ne ma xale nga mbay gi mune ya, ko gitu war a xam mu ne ko digal la nekkere doole mooy pam boobu mu ne la xam nga diw sàngam ñooñu dañoo gaañu bu yàgg mu ñooñu rek laa waxtaanee nii la mel noonu nii la mel noonu nangam a nangam yii rek laa waxtaanee mu nekkoon ku baax bu mu boppam mu ne ma soo góorgóorloo dina baax fay léegi danga war a ñeme mu ko faada man dama dee ruus waa ruus am na sax waaye dañ ko tegi teg ko fii ma ne ko xëj na noonu dama yàlla bindee waaye mënut a denc man mu ne ma yow sooy wéy yaram yaram daf dee daw soo ñeme ñuy tuuti rek dina baax lii daf ma ko daan edda bu baax a baax a baax mu ne def lu bare bare bare bare ñaanal rek waaw ah, Pa dama naan ah, Euh, xam nañ koy Moussa Afia Ngom ndax euh, nit ku ne euh, Seydina Muhammad sax bañ ko waree xam digga dafa gàddaayee mag dem Medina ñu gën koo xam nit ku ne xëy na li la gën a jege sax dina la jege torop ba doo xam li valeuram waaye Pa Moussa dama foog ne sax jàmbur ñee ko gën a xam dan gambien si because su la óoree ne everyday soo génnee gis Pa Moussa wala soo génnee gis benn abu ak faafa mu jege la lool yomba la lool xëj na seen ndaanaan ak seen woot xëj na yow sax dina la xaw a dina xaw a foor ci yow waaye ñi nga xam ne ñooy sori ñooy gën a xam ne kii ndaanaan la te ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay artistes suñ génnee ci biti foog naa feedback bi di gën a am sax ci jàmbur ñi ndax duñ ñuy faral di gis lu bari ndax fu ci mel ni Sénégal gi sax suñ ne abu ak faafa ñun den ko bañ sax dañoo nëbbatu suñu fa déggee ku nekk bugg nañoo interview ku nekk bugg nañoo am ci sa plateforme. xëy na nit ki always rek li la jege torop doy xam valoram am waaye Pa Moussa dafay koo xam ne his ah, word to be celebrated ndax koo xam ne la ku taxawal Afrika la ku gëm boppam ci li moo def dafa bañ ba ba dem amba Moussa li ma gën a ne ci moom mooy ne comme li ma la wax rek intégration bi mu di oote te mu dëkkoo ko because newut ne dafa oote rek dëkkowu ko wonewu ko waaye daf ko génnee ci biir woyam yi soo seetee di lyrics yi moo di mambo si moo génnee ak woy yi moo génne ci boppam most of them they are even oral traditions from both Senegal and Gambia ak lépp woy it has to have a cross border issue which will imply about integration loolu dekkal na ci lima ma si jofal moj ci mbiram dina woy the cultures of Senegambia or Gambia or Senegal te lii mooy woon seen tapisam te ba pare moom liggéeyam yëpp ci lii la bisoon te ci lii la newoon all the time kon Moussa même ba mu demee sa ba mag ñu bugg koo jëlee biir Sénégal ñu teg ko fi muy widdi den euh, former président bi pour ñu tege ko fii ba mu ñëwee mënut absorb ba léegi ci biir réew mi à soj because xool baa nga fees ak lam miinoon lam euh, jotoon xam biir Sénégal sax xamatu ko woon biir Gambia te fiyee woon route sam waaye doon mu bàyyi woon fii nii because njaboot bi has always been in here so def daal di criss cross diggante googu noonu Gambia ak fii dem ñëw so waaye potentially di bulk of his work ak xiiraayu liggéeyam bi yëpp li ci ëppoon yëpp mu ngi ko doon defee biir Sénégal kon loolu joxoon nañu a very good bridge li nga xam ne ah, neexoon na ma ci lool pour mu wone this intégration bi dal ne Gambia ak Sénégal loolu benn la ma ne Moussa Ngom sax waaye Gambia ñun xamuñ bëri de non non non non lu lu lu lu lu eh, naka la tuddaat eh, sikarkati soose bi day wax rek mu ne naka comme ma généralise ko ne Gambien bi xam nit ku baaxam ba su dee dégg la fi nekk eh, Moussa Ngom moom ñun xamuñ ko tuuti sax because damaa ne soo gisee ma ne ñun xamuñ ko tuuti demal Sénégal fu ko gars yi ñun réetuñ ko quota of that sax you understand ñooñu ñooñu ko gën a xam sa te du ma ne ñooñu xam nañ ko tuutali because gis nga an artist kenn mënu koo xam ba jeexal only li nga xam rek loolu ngay loolu nga day jàppa si moom because artist la mu ngee dunda life am ba pare mu ngee dunda life artist these are two different personalities these are two different identities xam nga they are two different in everything because niki no behavior behave a family ni ngay dundé ak ñom at sa level ni ngay dundé ak sa diganté ak sa borom sa diganté ak sa sëriñ or that level is different from ni ngay dundé ak sa fancy, sa job and everything you understand so why dama wax né comme ñun Sénégal ñooñu ko gëna xam Gambia lolu mom I can raise my hand and say that because respect buñ ko jox gida buñ ko jox xam artiste bu doon fonk ko definitely and you know I wish na ñu gënoon a uh, yaatal gën a xam lu bëri si moom you know because filoon naa ne amoon na lu bëri lu mënoon a jàng si moom but unfortunately here is the Gambia suñ déglu woon Fada Diga man dama de tooga ay ñeneen comme ma téye yéen woy Fada di ko wéyantu nii te fekk sax dem benn instrument woy Fada bi nekkut on dañ ma dee biréeg ne kon Fada lii la doon wax su ma ne yéen da ngeen tardé kon yéen lu Fada doon play yëpp yéen nekkule woon di déglu lu melni ni artiste du daano bi ne yalla bur la nit ki mbur la mbur yaa ka jafe mbur wul ci bëri mbur yaa si métier ci sa métier ngay doon bur sa ndam feeñ ndam bu ànd ak bànneex yow mi dundal bo amé alel amo bànneex njëriñoo ñoko jafé turi mbur ci yoon dafa reuy pour bëre bëre birim xex la xexal fam la waré katan ci ab way ngay nay la pour say non ñu bari ñu won tek bu fa ñu bari xamu ko won ya ngi am benn tragam tam fu mu day ne so baxé ñëpp lay jur nga bon sa yaay bu gëna a mu ne barki demba amna kuma olu be ma ñew mu nan ma mu nga bon du mu du gu yété la islam ko jité ku bon génn nga ca way nga bu society la iblis aku ko jité ku baax génn nga ca mu ne bax bari bañ nga bonit bari bañ baaxal te bari bañ mu wor xarit lula waji def ba tax nga di bañ loko bañ bañ baga xam nga faara dañ ko deglu dal faara monsieur du gambé rek de Sénégal Sénégal nag ñoo gën a déglu Fada waaw Gambia moom dëgg dëgg dëgg dëgg nañ ko waxte dee rek waaye Gambia dañ saaganee te Fada is a Fada ambassador la in the music No, I would say no because if they were knowing, if they know Musa Musangom, they will not let what happened happen. You know, they will not let Musa being in Senegal for so many years because of it, it, it's very easy because somebody, when he is doing music, okay, and the music is going everywhere, okay, wherever the fans are showing more love, frankly speaking, that's where you're gonna focus on because of the love was more in Senegal than in Gambia. You know, we have witnessed an anniversary done by Musa Afia here in uh, in Jama Hall, Kairaba Beach we were part of the guest artists who were there. But the turnout was so, so like I couldn't say it, you know. And it could have been something that could have been way better than that. ba bi dañ Sénégambia nit te Mikael Pa Yusufa ay lañ ba ci mi ndaw waaye daf ma ne bara yow li nga xam ci man yombut ku ko ci xam lu ma mës a rek xam nga ci dara mu ne ma lu ma wéy rek jox naa la ko tey jox ko aboo fafa lu leen neex nañ ci def aboo gi nii wax naa leen ko muy nit ku baax ku xam musique ku yàlla mayoon nag xam-xam wallaahi te Moussa Ngom li ma la wax rek li mu wax ci musique bi su ko gàmbee déglu woon benn woyam bu nekk rek ñépp jëriñoo si Moussa Ngom bam naan Afrika teylu len afrika diisoo wóor na booba du tay mu ne ndegam yalla dafa def ci ñun ab xam-xam bu suñuy xam bu ñu len ko seedaan ca la naan seet leen ci or beeg jamono bi te der bu wex bi jël ko fétalé ko bopam tay di ñu ko xajaane te xam afrika Africa kon afrika diisoo wóor na ku yàgg oote unité la ak nekk ben Moussa. Euh, Moy euh, liñ jàng si mom xale yi Banjul ba pare ñu séddale ko si àdduna bi yëpp mooy euh, tij nañu about respect tij ñu about si bir music xam nak nga nuyu jëflante sa waajur bu yaagul seen Seydina Omar la ko wax ne la kiram soo fa demee da nga fekk big love so musa Afia Ngum daal luñ fi war wax dal, si mom dal, suñ fi waree wax daal tey duñ fi jóge ko amoon la respect bëggoon Gambia pour ñu ànd si benn ombre mom moom tam yeb li la won lo tax mu daan jàlla Sénégal bi ko sof musique yi Sénégal dëgg la gënoon naa xaay ñoo gënoon a xaay gaay sen boss way afta ñoom tamit gaay gën hay hay bi moom nimal na lay fekk loxoy boromam so ñoom tamit dañ dan bébét digala musa tamit dem fofu noonu tamit di play di do lot of music in Sénégal loolu taxutoon mu bay Gambi taxutoon mu ous Gambi Gambi moy xolam way dina dem Sénégal because of industry music before is so big so dem fofu nonu jale fa yene message pour gambian ci nga xamné ni ñom sen dom ñu ngi outside di def lu reuy so bu mu demé ba nga am ay jamono ci la ko suñu président bi jëlé sénégal indi ko fi so xamné ni ñu ngi am bankhas bu mag bo xamné ni mu ngi génn gambia dem benen rew so ci la ko suñu président bi indi waaw Moussa mën na wax né maa moom 24 7 ñoo daan nekk Musa suma nijaay la ba pare mu doonon suma xarit Dol suma star dol suma idol Noto tax nga xam ne ay yu bari suma woyee dañoo ne <laughs> yesa Moussa Ngom la suñ ma gisul waaye fekk na ñu ne lu juddoo ci tàgga bu naawul jaaxali bokkam ñu ne nijaay olof daf ko yaxa rek waaye ni yaay la du nijaay de ni yaay la parce que moo sa yaaya bokkan ak baay wéet nañ lu dul jeex su bindee woy guddi Bor seet suñ toogee ci gannaaw man dina woy woy bi ba mu jeex du xamoon ni du mélodie du everything waaw man ku ko xamoon laa ba pare ku ko bëggoon laa ñu yàggaan nekk waaw ñoo nekkoon di same sport um, parce lopitaan la ma fekk maanaam moom fajar la woon um, waaye nu situation bi doon demee fajar boobu noonu sonn na torop te xam nga soo miinee di dem si lopitaan am na yoo xam ne soo ko gisee rek science la day nekk ñu noonu roche everything dokter Yang don't prescribe any kind of garab so mungkin stress on dat suba ba bëgg a dee waa at the end of the day bu mu génnee àdduna rek dafa nekkoon tamit luñ sant yàlla parce que sonoon nga yàlla su soxlee moom ku soxla rek ñu delawaat suñu xel ci yàlla rek te xam ne su yàlla bëggee moom képp ko bëgg but it was a very difficult moment it was a very sad moment fatali loolu sax daf holi, tooyal xol yi waaye rek pour mën wax nañi ñi nañi bo ñi octobre 11 bis bobu mom benen bis la won waaw bu mu gëna aduna nak definitely man time bu mu gëna aduna exactly la ko yek because euh suñ suñ drama bi ñu daan playal drum set muy Cheikh Tidiane mo àndoon nak mom Dakar dem playal ji ko. understand so that so boo xam ne gaañu euh, euh Cheikh mo fa doon play so man cheikh moman jega text you because the whole trouble in bi yep ñun don chat bi bi ñun don communicate on whatsapp suñ show yi ni ñu ngi dem play ñu ngi play be num you know uh, whatever happen boom happen eh? you know he text me dama ew eh, suba fajar gis text am you know no boy pa bi de dafa ma dafa you know dafa sick on the stage ñu wacc ñu yobbu ko l'hôpital and we lost him definitely and mu ma fekk kër but uh, teel naa ko yëg nag because of Cheikh mu ngi fa woon and Cheikh was a band member of the Humanity Stars. dañ ma kool ne Moussa wàcca na liggéey yeesu dama ko dama ko seetaan samedi fii yeesu just for you la doon play ànd ak ñoom Kéba Télo xam nga ma toog fii di ko seetaan just for you ci suba si ñu kool ma ne ma Moussa génn na àddina waaw na ma waaye nag. am nga rek so soxla suñ borom soxla da ngay bayyi mu jël te Moussa nit yi yàlla la Moussa eh, ni ci sëñ fàllu la Moussa sëñ fàllu rek la gom sëñ fàllu moy ki mak mom yeb ci domam lañu jébbalu waaw motax nga bénn mu naan la man day na man ci afia liggéeyama doy xalaatu afia <laughs> mu ne la faliloo duma booleeg yambar mu ne yambar mooy ki gëmut liggéey xamut liggéey xàmmewul ko baax kookoy yambar am nga di nga gis tooy nga naan kii yambar la déedéet kooku du yambar de yambar mooy ki gëmut liggéey xamut liggéey xàmmeewul ko baax kookaay yambar ñun ñun taalu bi sëñ Fallou lañ sëñ rek la ñuy moom lañ bugg a moom lañ gis waaw luñ am comme nañ ne sëñ Fallou ñu ko jox lu baaxul ci ñun sëñ fàllu du ko jox ak ça am nañu ko xam waaye xale yi tey xamuñ ko mooy li ma la wax rek su fekkoon ne tele yi benn weer ñaar wala li sénégalais naan Dakar na door quoi léegi nga gis samedi tax ñu ne ñu fàttaliku démba lu bareen fi woon ku mel ni Patouré maa ngi fàttaliku 1970 something booba Sénégal seen musique yi yëpp ay Tumba la amut sabar ci fàmmoon di di jouer stade Iba Mar ba ay after eight yooyu toog light bi black out off nga dégg sabar yi ci biir woy bi mooy seen woy bi mu naan maam kat ti na sabar yi réer sénégalais yuuxoo ne sabar ci biir musique ci ci musique ñu ngi ko soog a gis waaye nag ñooñu ko gën a soxla mbay gay fay ñu ngi koo laaj ci kan la mooy Youssou fii lañ jaar 1970 71 yëpp nekk ci paatu Faatoure ñuy daan nekk màggadaan ci ceeks suñ woyee ba si digg abal leen waaye ñun li ñoo fayantoo ak liñ fonkut ñoom bañ ko jëlee dañ ko jàppaa seen téeméeri loxo mm-hmm. Youssou Ndour mooy roi mbalax te Gambie yaay roi mbalax ci musique fii lañ ko jëlee ca taay mi màggadaan boobu Ousmane soose ak ñoom baajaw ñoo daan pilee ca Tafa Jont lesewaaf mooy fi marché bi nekk fa la kanku jéeri nekkoon sénégalais yu bari fii lañ jaar waaye nag ñoom dañ fonka lañ am tey su ma juddoo woon Sénégal am eighteen years su ma tëggee pot sax lu ma def su ma ootee grand théâtre mu gis affaire bu ñëpp ñëw fii nag mu nal bay laal asamaan si uti leneen lu kenn xamul sax mu leen gënal ñoom li ñu am te misaal maa ngi ana artiste fi nekkoon ñëpp dem nañ duma lim waaye ñëpp dem nañ ndax dañ discourage sonn na ci sa musique bu ko taxawal sa réew di def lu mu la óor ne li maa def sax jombut moo gën li keneen di def waaye bëgguñ sa bos ah li si kanam day rawli gott waaye li ma gis present nii dañ war a góor góorgóorlu bu baax di fàttaliku ñi ñun ñii lañ am suñ leen fàttaliku ñun ñu dund dañoo ragal parce que dañoo wane suñ demee rek li mooy xew dañ daan naan kenn waru koo fàtte ndaanaan duy dee si olof moo tax ñu wax loolu olofal ndaanaan du dee ndax dafa am lu fi dee bàyyi nit ñi di ko jëriñoo tey ndaanaan yi joxe gannaaw yépp tey man ni dégg gisuma ñu leen di célébrer comme suñu dëkkandoor li ñoo def ah xanaa Gambia Talents maa ngi leen di ñaanal bu baax seen TV bi yéen ngeen toog ba di ko jëriñoo ci lu bare bare bari parce que yéen a ngi toppal lu bari at bu jot rek ngeen def lii man duma ne bu leen at bu jot ngeen fekk suñu laaj ñu noonu gën a toog seen kër yi def ko te soo leen ko defee ni mu mel nii rek laa mel. E Moussa tamit Gambie dañu war a xam lu mu woot waaw because of Sénégal dañ dee gis ne ñoom tamit bu yàggul nii rek Dudu Njaay Kumba Roos duy wëy génn na àdduna waaye every time ñu ngay wax si moom. xam nga di wax jaloore ñu def foofu noonu lan askan bi naka la ko bilee naka la xale yi folo foloyee ah, cosaan bu mu génnee foofu noonu soo like Moussa Afia Ngum rek ñun magi réew mi at kilifa réew mi nekk fii tamit ak government bi ma ngi leen di ñaan ñu jàppa si lii comme yéen ni ngeen di def ni ngeen di def yal na leen ko yàlla may ngeen koo def ay at yu bare bëri because of li ngeen def ni ñëw fekk ci ñun salaam yi ñuy waxtaane affaire yi Moussa dafa baax lool si askan bi pour askan bi xale yi jóg xam kan mooy Moussa Afia Ngum Gambia waaw su ñëwee si fana boobu noonu su ñëwee si fana boobu noonu Gambia Talent TV la Gambia Talent Promotions ñoom ñoom kenn du ñoom ñom dañ dañ anda fada bala fada di gañu nit ci diga ko Gambia Talent Promotion dañ anda fada, Gambia Talent Promotion dañ anda fada, di am mom mu ngey dunda bem joxe gannaaw kóolare bobu lañu ñoo diko because dafa ne kóolare gannaaw lay fété ñom bi mo dunda lañ ko téye xamné ki ku magala, di dem ak mom yi be yalla ñu jël ko be tay ñom ñu ngey gestu njabotam di gestu mbokam di gestu ay mbiram di gëstu ay mbiram pour bu mu soo Gambia Talents Promotion ñoom kenn du ñoom ak ñu associé tal nekk si biti yëpp ku demee ni ñoom Pa ba Jaw ak ñoom Buhari ñoom Joog Malik ak ñeneen ak ñeneen si biti ñi nga xam ne ñu ngi see jàppa ñëpp ñoom ñoom wax dëgg neex yàlla ñun amuñ yéen luñ leen wax su dutoon yéen tey Fada dafa seey tey yéen fi ngeen ko mën a àggale ñun famille suñ ko fa bëggee àggale te pour ñu laxaw seen gannaaw waaye instead sa yéen ñoo oone ñu kaay leen bés bi jot na kaay leen lii dem na waaye suñ ñëwee indi other side Gambia dañ bàyyi seen loxo suñ leen si tegee yéen Gambia ñi si des dañ bàyyi seen loxo tey nguur bi muy nguur mi sax waroon nañ tey Sada Fada du célébrité bu ndaw si dëkk bi fii yaa ngi understand Fada waroon naa nekk nit koo xam ne Gambia dañ ko waroon di célébrer comme Sénégal ni ko def Sénégal every year just for you dañ ko ko defal Fada réeru Sénégal man su ma duggee Sénégal su ma ne man jarbaati mu Ngom laa lu ma soxla dee yomba dañ dee concentré si man sax woon ma leneen beneen ité boo xam ne before gaa yi xam loolu ité ité ité boobu man wanuñ ma ko so loolu rek wan na ma ne ma am na yeg daal si biir dëkk boobu noonu waaw. well it's like it's important for Gambians as a whole to respect and celebrate our living legends not before they are gone when they are gone because let me tell you one thing okay I need to show you support before you are gone. You know, I don't have to wait until you, you're gone and I start acting like, yeah, I was so in support of when we know that you are not. You know, when the person is leaving, you know, do your utmost best to support the person is important. You know, don't wait until he is gone and then you start in acting fake on it. You know, support it here or after. Because when the person is gone, when he is leaving, you supporting him. When he is gone, continue supporting. Try creating certain things, events that will link to him. Because he got a family in here that we have to support. So don't wait until the person is gone. You know? So it's important for us to respect our legends and you know, because somebody who was who was um, making you happy through music, you know, try to make him happy when he is gone, because there is a family that he left here, and there's, there are ways that you can do to support his family. It's important. That will make the person happy down there in heaven. suñ kilifa yi nañ leen uh, utal ay toogu na gaam yee jéem a am toogu yoo xam ne du nit ki ba tey moom moo ko daajal boppam waaye xëy na nit ki moom moo ko yeelool boppam te dafa am ñoo xam ne dañ fi def yoo xam ne si dëkk bi. eeloo nen yu mel noonu ñu tegal leen toogu yoo xam ne understand nga dina nekk ay toogu kilifa yoo xam ne xam nga kilifa bu nekk dëgg dëgg di nga fa am place understand nga ba nga xam ne tey xam nga lu bokk si yow understand nga dina fa mun a feeñ dina fa mun a agsi xam nga mu nekk loo xam ne mbiri dëkk bi la understand nga war noo mun a gën a jàppale euh, gën a jox cër du ma ko wax jàppale gën a jox cër lin moom understand nga you know bu ko xam naa ne uh, am na ñu bëri ñoo xam ne xëy am na fuñ leen am na fuñ leen seetaan te xëy waroon leen waroon leen fa woon a seetaan waroon leen leen a teg fi ñu leen war a teg ba nga xam ne tey waaye sant yàlla ne xëy na tey lu mel nii am na yéen a ngi jóg di dox understand nga di di di waxtaanee mbir yi ku mel ni Moussa Ngom ak yu mel noonu yëpp you know loolu dafa bokk si yu am njëriñ si dëkk bi waaye daal war nañoo gën a mun a jàppale gën a support lin moom. loolu li nga wax noonu gën na maa tax delloo du Musa Ngom rek maa si ñoom Koto ngoom muy magam ñoom Koto Ngom ñëpp def nañ fi seen waala and then uh, macha allah ñu ngi waaj even suma département bi sax si boppam defuñ ci lu bëri <laughs> tu tell suma bopp laa koo njëkkee muy ca nguur gële nguur gu ees gi nag bi mu toogee xaw nañoo tane because ñu ngi xalaat li xalaat di lu mel ni def li ñoo ooyee posthumous award excellence in the arts award muy ñi nga xam ne def nañ fi dara ñu ngi si kaw plannings yooyu noonu ñu ngi si waajtaay doo waaj nañ ko ñaari at a ngi nii ba ñu ngi utali ji ñetti at ba léegi nuñ koo am waaye incha allah xam naa ne comme que ne mu ngi si biir xol yi mu ngi si biir xel yi dinañ ko ami nag dafa yombul pour am ko nag wax dëgg moo tax affaire yi demagutoon noonu waaye ñu ngi koo séentu te su dul fii waa digga la fu nguur célébré tut di communauté. su ma bëggee wax si moom mun nañoo toog fii at te duma pare waaye lu ndaw rek classé compi rek wax la si moom am he was a great dad ku bëggoon njabootam ku bëggoon doomi aadama ku respecté woon doomi aadama and most especially ku bëggoon ki ma tuddee muy affaire mbake di dom ci Serigne Fallou Mbacke. Afia ah, Ngom ah, papa la won bu bu mut papa ah, papa bu jambar la won papa bu màndu la won tek ci laat. ah Afia Ngom si yow. ci man moom suma mam la suma mam la woon parce que man ñu ngi xamanté ñu wax teer xam nga dañ daan dégal turam yalla dogal nak ñu nekk si ñu nekk xalé yo xamné Euh, Gambia fii dañ am wërsag pour play ak moom so buñ nekkee di play teer benn dee mu laaj ma ma wax ko wax ko fi ma jógee mu ne ma yow moom sa maam suma gaal fen la moom kon xam mm-hmm. nag lañ nekk di demee ba pare ñu bokkoon koñ waaye moom dafa nekkoon koo xam ne kenn la woon su ñun daf ñu yokkal euh, expérience ñun mm-hmm. comme ñun bi nga xam ne ñoo nekka xale ay xale nekkoon si baan bi ñoom Kéba moom moom moo yar Kéba Sénégal mm-hmm. waaye ñun fi lañ xamante ak mu yokk ñu lu bëree bëree bëri bëri soo bàyyi xel eh, just for you sax bi ñuy dem di play ak moom loolu warutoon a nekk on di ten kon eh, démba dafa waroon a nekk eh, on di taat la waroon a nekk waaye bugg a dëkkaam bugg a wone lu nekk dëkkaam moo taxoon mu bañ ne gaay yi du dem parce que gaay dañ bëggoon ñu bàkk leen foofu super jamono su moom mu bañ mu ne dafa am lu mu bugg a wone boo bàyyi xel foog naa ne ñu ngi ko doon wane jos eh, TFM mu doon explain loolu dafa am lu mu bëgg a wane loolu mooy woon ñun soo daf bëggoon a ibil yoon def na ko nag ba waaw def na ko nag ba pare dem bàyyi na fii ah, loolu naka la mel dafa mel ni rek Moussa daf doon senegal Sénégalais yi ne man Moussa Afia rek duma ñëw foofu foog ma nit ma ànd ak sama ay tiim waaw dëgg la dëgg la ñoom parce que ñoom dañ foogoon ne xam nga rek Gambie ñoom ñu ñu bàkkee dañ foogoon ne xëj na dañuy dem rek def benn affaire waaye nag yàlla dem na def na ñu dem am fa ndam rëy boo xam ne nii ñun dañu wàccee te suñ time jotut bés boobu dañu wàccee te suñ time jotut which means ne li fa def moo baax xëj na seetaan ngeen audio vidéo si ak yooyu waaye yëpp nag yàlla moom ba pare mu doon professionnel boo xam ne ñun ñun xam man de xaw ma woon ne sax feebar na ba si kaw stage bi bu mu éegee parce que last morceau bi si laa soog feebar ndax am morso bi ni ñu ko dee play daf dee xala gaaw tuuti soo mu ngi yéex ba maa ngi naan suñ droma bi du gaaw tuuti ci la ma gars yi di joxeñ paar bi ma def nii ma gis ma ngi toog ma xam ne dafa feebar moo tax gars yi ñëw drop ko wàccee ko waaye jàmbaar la woon ak li muy feebar yëpp mu ngi ñoo woon ne moom la professionnel la so ñun nag jàngee nañ si loolu boo yi nga xam ne ñoo fi nekk dañ war a jàngee si loolu ndax du woon ku ndaw waa du won ku ndaw si bagage yi def nga ko xam nga demoon ba Sénégal ndax dëkk bi foofu fees na del te ku ci nekk dix mille nga fay maa ngi fàttale ko buñ buñ plie ba wàcca di delloo sabar buñ àbbi woon hmm. am benn waaye fekk ñu fa dañu ba pare grand Moussa Ngom dafa ba pare ñu ne ko waaw mu mbéj boppam dem hmm. dellu nangu ta dugal ndax la bëggoon a seetaan si ñun loolu moom dañ koy sant yàlla bu baax a baax buñ amee ni moom waaw mu yóbbu ñu ba Sénégal moo nekk loo leen gaañi liggéey leen Gani bololen, leen kon nag gaañi liggéey leen amoon na jamono joo xam ne ñi coono woon nañ li metti ci liggéey bi suñu mam ñi def nañu ko kon nen leen ànd boolu te jàpp ci te sito gaañi boole leen boole leen gaañi liggéey leen ak mercy upon his soul. Musa Afyangam, Akasa, may your soul rest in peace. yeah. kusanga umtata kambi yankulu wolkideta kusanga umtata serekalunkulu ikotekideta سوباسونيكس موني ترانسفير نيا دال سيوات ان لن خيوال بنيخ نيخ في بواري اكتوبر دي جيخ واو fii ba wari octobre di jeex mën nga am sansuwit benn saaku maalo saa yoo jotee xaalis Gambia bàyyee ko foofu sa UK Europe US Canada Switzerland ak Supersonic money transfer <laughs> xanaa lii neexati na doore ko tey ba weeri octobre di jeex mën nga win benn saaku maalo saa yoo jotee xaalis fii si biir réewi Gambia bàyyee ko UK Europe US Canada ak Switzerland téeméeri saaku maalo ñoo fi nekk kon gaawal nga bokka si téeméeri nit yi nga xam ne mën nga am sans win si xéewal yi nga xam ne kenn dootu ko naatable ak Supersonics Money Transfer bànneexu leen ci suñ yónneekaay xaalis bi gën a wóor gën a gaaw gën noppale ak yónneekaay xaalis maaga si bir réewi Gambia te duñ la fayeeku dara saytu leen si Google Play Store wala Apple Store nga mëna bindo ci si suñ app bi di Supersonix Money Transfer app shu chay bi xewal ak Supersonix rek Hey, yo, Gambian Talents. seen TV bi neex na ñoom wow seen show yi neex na ñoom yeah seen TV bi rafet na wow Gambian Talents TV ñu dem nañ seetaan Gambian Talents. Uh-huh. Eh. Gambian Talents dara du ko tee Gambian Talents. wow na na na. <laughs> thank you.